weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weeru bamba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk. jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk. avion otoraay car saret ñu ngay daw di dikk. ndax 18 safar. waa ji ko tardé ki jar rëkk. ki jar rëkk ki jar rëkk ki jar rëkk. nag gëléem ba ganaar ay xatee ki baa ñu far lakk.

Tangga. Wah, bơi? boy? Ming. Ming lò Loko? Hala mo, kawak ko kawak nấu so be aling fake lo. Ba fake ko lang kung nekk si kay yoyu. Ah, boy bi nak ab intellectual. Waaw. Kay ñak way. Bi mom dala jang, boy bi da jang. Ah, bonsoir. Ah, ça va bien. Ça va. Bonsoir, bonsoir. Bien, merci. Salut, salut. Ça va? Ça va bien. Ça va? Alhamdulillah. Ça va. mooy mooy mooy étudiant bi. ah waaw <laughs> <laughs> da ngaa baax. étudiant bu bu bu yaatu nga. wute nga ak yeneen boy yi. ndax eh, yéen eh, yow bokko ci étudiant yi soppeeku. sol mu mu xonq ñu sol bu ñuul. def leen neex. ak leen saf. wallaay waaw moo tax ñu xam ne am nga sutura. Mm-hmm. moo tax eh, ñu jox leen cër bi ngeen moom. Mm-hmm. ñu sargal la. Mm-hmm. bokk na ci li gën a tax ñu am ci yow ak yaakaar qualité ba wola te rawatina moom mii. ndax in étudiant yi. dañu leen yaakaar si réew mi. réew mi nun in la yaakaar. Fi nu tok ni in rek la no xaar te nu ngi li la ñaanul gudde beccëk Omar pen way na aw way wa étudiant étudiant la andal gudde ak ngon gudde beccëk bëccëg nga ca ta trus trus man jàkka man ñi ay tay tay la depuis boobu ba léegi nga demax jom ji góor góor leen rek waaw dina baax léegi daal dañu bëggoon. Euh, pour wàllu enveloppe waaw. dafa am. Euh, leetar lettre bu mu doon bindulu. kaay toog nii na ñëw toog nii mu gën laa jege. expliqué ko toogal gone. xale bu yaru la de. expliqué ko. d' accord léegi yéen kañ ngeen di adressé lettre bi. waxal. Hmm. waxal non bu ñu de dégg mu ne lan te ñoom seen wax dañ koy taaw yi ñu ne kan la ñuy agressé. booy fi kenn agressé wu fi kenn de. waxuñu waxi agressé agressé wu kenn wallaay ab enveloppe. ah, ah dañuy lettre la bind. lettre dafa war a am yar ak dal. a ah, dal ah teggin na. waxuma agression de. Hmm. maanaam kan ngeen di bind lettre bi. Ah. ah kuñ koy fan la jëm ah fan la jëm. Hmm. <laughs> waaw waaw ni ñu ko bëggoon a bind. <laughs> yàlla la yàlla daal lan lan bëggoon a bind. dégguma yàlla rabbi. allah. yàlla yéen neex de. ah. ay fa ngeen mos a gis kuy bind suñu borom lettre yàlla allah. Euh, ndax ka euh, mën nga bind lettre wala mënoo ko. si mën naa ko bind. ah, ah defal defal loolu rek. bindal ñu defalal ñu rek. am déet. defal nu loolu. mu euh, da nga naan ko rabbi. Mhm. ndax dafa daf ñoo fàtte. Mhm. wala daf ñuy tànqamlu. waaw wër nañ liggéey ba sonn mm-hmm. amuñu liggéey am naa benn jabar mm-hmm. jama kër gi ni nga ko gisee gis nga ni situation kër gi mm-hmm. nga waxal ma ko loolu hmm? rax ci dollit nga ne ko am naa doom ju góor waaw moom daa judd rek mel nu ko neex di rab mi ngi génne wooyu waaye kenn xamu ko bu dee man naa fexe it yàlla sunu borom di fexe ba ñu xam ko. Mhm. ñu xam ko ndax muy dem réew ma di ñëw. am déet mën na ko mën na ko mën kaa bind. bindee bindee ko noonu rek. na rafet waaye ki sunu borom la jëm bind bu ko kii bu ko def bind mu jëm ndax màgg. waaw na rafet. kaa mu jëm ndax màgg. boole si u nekk yàlla. bàyyi ma sama lettre bu ci wax tamit. bàyyi ma rek waaw may naa waaw léegi jëlee sab leeta. waaw doo ah doo ci ko bu ma amaale wujj wi. wax ka ne que yàlla. Mm. nu waay étudiant nekk yàlla. dama amul temps moo tax. waaw léegi bii rek. dama fekk sax may bii rek bii rek. bii rek dëgg la xanaa kay oto lu mu xat-xat nuyul ma sa sa sa sa yaay xaj na ca. nekk maa ngi dégg. nekk yàlla. Mhm. màggal gi ñëw na ba noppi. Mhm. bindal ba te sëñ bi daf noo sas. ñu bëgg ay xar ak gileem ak bëy ki nag ak pam ak poire ak ananas ak pompoli mousse ak singom ah singam da daaji ngam yoy yep ñu balé ah, waaw waaw kay ndiko lool moy sama wujju ko hmm. faté né ko buma am wujju ci bindo lool jerejef boy ok ñoo bok jërëjëf yalla na la yalla fay ok jerejef ba jub yalla na la yalla fay boy bind boy bi mën na jàng boy bi fi ñu ko bind li ñu wax non lepp nga dugal sa poche ah waaw ni jaakat mako yobbu ku yobbu lettre lettre quoi lebu dina ko ding ko yobbu ding yobbu lettre man yow manam lebu man yow wala dina da ah. aw mas la gis ka dem si yalla ñewat yow yow yow do ko eh kan mo ma sa dem si yalla ñewat fi gis na legui ñu def lettre bi ñi dem ñep gisat na si ken eh lettre bi fi mu ne sa poche ni ba mu fi jox fa dem andalah mom buma sumé sumee mbub mi sax dugal fa la dugg duggalax mom yalla dina ko jot alhamdulilah yalla ngi ay ndawum fu ne ah kon set len yeen ñaar ñi ku yóbbu lekk man nak mo ci kenn tudd billaahi lu am ci lettre bi ñëwee do ci ñam du ci jot du ci jot billahi oui ma yalla mu ngi fi wa feñ na ni fang safar de mo fi xey dik weer wa feñ na ni fang safar de mo fi xey dik weeru bamba la kon kuy mourid jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk. Ah, salbat ma gën a xam mais nag. non man dama lay nam yàlla na ko. xam nga mais dara a déggee xam rek. Eh, wala bro mais nga may jëndee ki kenn xamul lu muy ndural gayaan mais mel ni pitax dama koy jëndee ndax lan man booy bu fekkee da bëgg a profession ci occasion bi pour baay ma di ma dindee gars yi nga xam ne mooy loolu duñ gis dara seen bët yëpp gumba nga wax ma ko bàyyi. ndiku eh Mbépé ndiku eh kii kan. yaay kan Fall. ki benn cuur la rek. xaw ma benn cuur benn car fi ngeen di ko man du sam morom te jigéen day am fréquentation bu baax. est-ce ma la wax kii baaxul ah. yow yaa bon yow gën a. këcc eh, ñëpp gars yi eh modeler sa xam nga ki ngay waxal. dama ko soxlaa xam. kii sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. ça se voit. ay ratatati rek. <laughs> mais nduroo ngeen de lii bëggoon naa ko wax bu yàgg bu may doog teew mais xam nga mooy loolu émission ak mbëggeel xam nga kii dama koo bëgg faal. gaan vous eh, man maa ngi dem mais sa genre yi xool ñi ngay fréquenté de. dañ déggante incha allah. incha allah baax na waaw maa ngi jéggalu xoolal xanaa daa juddu démb rek nga juddu tey mais kii yi ñaar teg teg. noppi lan moo la fi andi. xam nga rek ndiku déggul boobu léegi mooy loolu jëm naa la coytu côté bu nekk dégguma la fen nga këccët ma bàyyi ma si biir man mooy loolu ndiku je t'aime booy. yow bàyyi la si biir mooy sama arrangement. bu ma la bàyyi ci biir ba léegi booy xool dama nekk sama jàmm nekk sama à l'aise yow mënoo maa bàyyi. mënuma ko. may bàyyi nga yox ma yox dégg ma la wax. gis nga sa yëf ñàkk fayda yooyu nga ma def keroog naa ma ay damay gént ak géntuma yooyu gis nga xolal ndayam seen kër yaa may dégg waaw kay booy ndiko tu sais man m laa man du ma fen gayan gént gée ma trompé rek mais xolal billaahi bàyyi su ma yoroon deux cent mille dama la koy jox te xolal maa koy lijjanti maa ngi koy lijjanti maa ngi koy cotisé amagum naa huit cent cinquante affaire yi léegi mu mat dans quelques jours day mat ma ñëw jox la say deux cent mille yow kongu Lor de bu amé jamm am. dina am fa boko andé tek ko sama loxo bi fii si am. man man yow la love man e eh, sama love love sama love yeah. Mm-hmm, nopi nga. yoxal ma yox tank andi woko du nek ci jamm jàmm. waaw ah, tum naa jaar sa gaale. mol mol tane may gëj la ak laa ah, nga ma xam may tay de. kelche wer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xey dik wer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xey dik weer wa feeñ na ni fang safar de fi xëy dikk weeru bàmba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk avion otoraay car ñu ngay daw di dikk